سمعوا بكم ولله كل نعم يجعل سعيد القرآن وعن ابنه نعمتهم xanaa bëgg a dégg dénkaane ba te doon dénk doomam naan bu ne yastaqim falaw falawdu tanmi uruquhu falawdu tanmi uruquhu qawiman wa yaxsaahu iza maltawa tawa wala tuti al hisqa al mudilla wa kun fatan إذا التهبت أرشاؤه في التواتوى وعاصل والمردي فكم من معلق إلى النجم لما أن أتى الهوى هوى وعاصل ذوي القربى فيقبه أن يرى إلى من إلى بر لباب ضوى ضوى وحافظ على من لا يخون إذا نبى زمان ومن يرعى إذا من نوى نوى wa in taqtadir fasfa fala xayra fi mri'in ida ntalaqat asfaruhu bi sawa sawa hmm. wa iyyaka wa shagwa falan turada nuhan hmm. sakabal axul jahli alladi marawa awa qul hmm. jamil busayna qaliliya in qalat busaynatu ma laha atana bila wa'din faqula laha laha seetlu bu baax a baax seetlu bu baax a baax noonu la mel bu say na tu tusri ataawa wa masgulun li xosmi alladi bihi on baata tuula layli yarasuha saha noonu la mel mm. waaw bu say na tu tusri bil xasalati fi duha mm. iza barasat lam turq yawman biha baha moom la nit a dégg laha muqlatun kaxla wa najla wa xilqatan ka anna abaha rabi aw ummaha almaha moom la nit a kii loolu la dégg bu ne eyow sama ndaw istaqim jubal jubal xocc falon du bant tan mi dana yokk maruuku ay sadditam mooy mm. ay reenam mm. xawi man bi mu daa ji jub mm. mu ne njëmbat bu jubee la ko jóg di gën a yomb waaye wayax saahu dana ko dikkal at tawa halaku isaamal tawa bu dëngee waaye bu dëngee dañ koy jóge rek a dem nit su bëggee mucc dafay jub mucc ku jub la yomb ittaqim jubal falon du bant tan mi dana yokk horoo ko ay sadditam ay reenam xawi hmm. man daaji ji hmm. waya saahu dana ko dikkal ak tawa halaku hmm. isaamal tawa bu wala tu ten bul topp al hirsa xiir al mudilla gudaaji tooxal bul doon ko topp xiirteem topp bëggeem loolu day toroxal nit bokkul na nga nekk fatan de waajoo xam ne isal taabat bu takkee asaabuhu ay baljatam bi tawaa ci xiir tawaa mu lew nekkal nit koo xam ne bu ñàkkee yi dana sàmm sagam bu nekkee ci métti métti yi dana sàmm sagam isal taabat bu takkee asaabuhu ay baljatam bi tawaa ci xiir tawaa mu lew waa si nanga moy alhawa bànneexu bakkan al murdi bu daaji halage te itam ngay wattandeku bànneexu bakkan dafa toroxal ni rek fa kam min muhalliqin bari na aji deey ilan naj mi jëm ci bidiw jëm ci dalaj mi lama ba mu toppee alhawa bànneexu bakkan hawa daanu na bari na ku jaroon waaye topp bànneexu bakkan tax na koo lu waral jaratul dara bakkan min muhalliqin bari na aji déey ila najmi jëm ci bidiw mooy dalañ ko xam jege joon na ma xamoon na kowe daraja bu la maana temps bu mu toppee al hawa bànneexu bakkan hawa waaye waasan na ngay dimbale zal qurba borom ak jege ñaale ak am mbokk loo ko tanee doo ko wanee dimbale ko fa yàq buuxu ay yura bu gisee ba dawan xoot ilaa la man ci ku xam ne in dawa takku na mu ilal xurri jëm allah baag buraa ji sell xam na loo xam ne ñi gis ko ci kuñ lay tuddee du sa sak sa sak ci kuñ lay boole te yàq bu dana ñaaw mm. an yura bu gisee ba mm. alaaman ci ku mm. in dawa tàkku mu ilal hurri jëm ci allah bawe bu daaji dawan xool waxaafis te na ngay wattu na ngay sàmmanteer alaaman ci ku xam ne la yoxoonu duhuruj ci saa na baaw becc ngalee samaanum te itam ak lu jamono mën a dikkee ki nga diggaale tem dëggu del bàyyi xel dëggu ak lu jamono mën a dikkee ki nga te xelaatul hur a bàyyi xel dëggu dëggu waxaa bis na ngay wattandeku na ngay sàmmanteer alaaman ci ko xam ne lay yoxoonu dumu huri di daan na laaw becc nga lay bañee damaanum jamono wa ak ku xam ne yaraa dana mu isa ma nawa bu héene an nawa sori koo xam ne bu la soree mu ngi bàyyi xel seen diggante kooku del bàyyi xel gannaaw wayen taxtadir boo manee pas pas na nga du muy su fekkee tooñ nañ la nga mën a fayu lool mm. yow jéggalal rek mm. bul def ku gëm rek nga wala xayra déet yiw hmm. in da nekk ci waay hmm. joo xam ne isan talaqat bu hajoo hmm. apparuhu ci daru bopp sawaa mu lakk ko comme rek duma waaw loo jekku rek fayu ku la tooñ rek nga fayu xamoo bale loolu in da nekk yoo xam ne isaan talaxat bu hajoo ak faroo ay wexam bi sawa mu lakk wa iyaaka maa ngi lay wattandeku loo wa sagwa ak tawat bul bëril njàmbat falam tara doo gis mukk saanu an borom xel saka muy jàmbat ni ko xelu dëgg-dëgg su mën na ñàkk jàmbat itam Hmm. bal li fi nekk hmm. ahul jahli borom ak réer mooy ki nga xam ne hmm. hawa mu mar hawa jajjubu njàmbat lu am xàq kooku gisee rek dof ndax du ko fajal soxla te dana fàtte suturaam loolu moo tax dof moo koy am mu ko melal ni li ah dikki fii naan man xawma dara maa lii maa raw lii rek njuddu démb ñu la war da xamal dañ laa xamal rek te mm. du tax kenn mën fatal la lii la góor gi wax fa dal di wax alxulaam gune gi lim na bare fi ñaal woy seetaan mm. gune gi wax ñi doon seetaan mm. ne yaa lal ajibati ndaw kéemaan wa turfati ak kéemaan alxaribati bu laa ji tumaranke mu ngóol nag de mooy di lesoon de talaaw nopp dalootina walla walla boog bët dalootina hmm. an hun bak an hun bakkan ci hmm. samaay bu nekk ca kaw hmm. wustun ak muntu suuf filmaay bu nekk ci ndox mi teen de signalé celmaay celmaay te yaa gën a salfe kone walla doon ak baat ka sox baa bu mel ni sàngara wa fi'lun ak jëf kalas ba ju mel ni jembaray mm. ba waxee lu baax te jëf jëfewoo mm. du la tax a baax mm. nga baax da ngay lu baax ku la gën lu ñuy def kooku la gën wax yi taxul doo nitu dara loolu la góor yi wax gune gi wax wala bu naag baat ka sax baa bu mel ni sàngara wa fi'lun ak jëf kalas ba ju mel ni jembaray su maa xabala topp mu jublu moom gune gi ala i ci góor gi bi lisaani saliitin ci làmmiñu koo bari wax waxaytin waxayti mustaditin ak meram aji jéggi dayo mu engagé góor gi parce que ne topp koog moom bu baax te boo mer na waxaala mu ne uffin cam la ka ñaan la min sawaaxin ci tëggaakoon ay wax bi lisaani ci làmmiñ rawaaxin kay moyaakoon al ihsaani walis rafetal wax ji lu neex neex mm. làmmiñu kese rek mm. kooku taxul ñuy tagg kenn mm. làmmiñu kese nga amee ku wax ji raw ci yow jeex taamur yaa ngi digle bil birri ci lu baax yaa ngi naan baaxal ci nit ñi defal lii defal la waxtaan wax ko te ngay moy wax ko xal xiir di moy ak muus te yaa gën a bon muus muus dafay jur doom da ko lekk léeg-léeg mais sa doom rek moo koy def waaye fa yëkkun bu nekkee sababu tahannuti ka sababu sak tap nafa xasanaati ka dexawu sa métier sa tuut si nga xamee ci sa liggéey si mel ni dox ne yaa ngi ami kiliyaan su moo la tax a nekk di tëbandu di jaay jafe faramaha yal na sànni métier mi allahu yàlla bir kasaadi ci lamu te mel ci mel yàlla na nga fay kumus way saadi husaadi ak yàq ak way hañaani yàlla na la noon jëm yekkoon bu nekkee sababu taanutika sababu satat nafa xasanatika dexewug sa métier bi faramaha yàlla na sànni métier mi allahu yàlla bil kasadi ci lambu wa ifsaadi husaadi ak yàq ak way hañaani hatta tura ba giseef la abraha nga gën a féex min hajjaami saabatin ci nampatal katab saabat la da daan nampatal man daa am kiliyaan bu ñëwee ci barab bi feray yendu ba mu rek kenn du dikk xam nga yaay jiram ko bëgg sagal léeg rek mu dikk rek toog bi pour mu nampatal ko ndax nit ñi foog ñaa ngi am kiliyaan bu yàggee nit dikk yaay ji ko ne ba dara dédiya yaay ji loolu nag kooku ñàkkee woon client yàlla nga ñàkkee client ni kooku de ta tra ba abraha ga gën a féex min hajjaami saabaatin ci nampatal katab saabaat la waat yaqate nga gën a xat xam ci warsak min sammil xiyaati ci ban hmm. banu pusa nga ñàkk warsak ba dara doo xaam hmm. loolu la gune wax waaye hmm. nag fekkee da ngaa wax lu la neex ah day gëm wax lu ko rek wax ma ko lu ko neexul hmm. jarul sa ganaar buntu néegam soo fekk rek rek hmm. waaw fa de wax la wa aseexu góor gi ne ko hmm. bal li fi nekk kay sallate yal na xiir allahu yàlla alayka ci yow basaral fo mittaabi yal na yàlla teg jàngoroy borom ju kenn man walla te yàgga xiir allah yàlla alayka ci yow basaral ba taabi gémmiñ wa tabe yoxa dami ak yëngatul deret nga bëri deret joo yàq xataa turjaa ba loru loos la ba nga loru ilaa hajjaamin jëm ci nampatalkat ba nga loru dem ci nampatalkat xatimin ispitaati kuraaji mag ci jékki dayo nag dem yaa ngi nampatalu ji daa jël nampatalkat boo xam ne ku jafe jafe la azim listiraati ku mag gi jéggi dayoo la faqir listiraati ku daa ji diis ci farta farta yu diis a diis lay tege kalil misraati ku daa ji lott ci paaka te parce que paaka bu ñëwu bu ñëwadi lay amee dana la sonnal lu yàgg te loolu defal ji bëri ñandaxi wa duraati ak ak galawal mu ne ko salte ci kaw ci suuf yëpp salte ci kaw ci suuf na nga dajel naam tal kan boobu loolu gune gi wax loolu góor gi wax xaala xaaris nee na wala ba ba birloo alfata gune gi ne annahu nagam wes dana mu tawat illa xayri musammitin jëm ci ku duuma aji noppiloo wa yuraawil te dana mu sàkku istiftaaha baabin hubbi buntu musmatin bari bu ñu tëj gune gi nag mu dem ba gis ne fii moom lim bëgg mënu fee xamee hmm. adraba du moyu na andragent kalaam walis dellu wax delloo wax tontot waxta fasa mu waaj hmm. lil xiyaam yi ngir jóg hmm. dafa préparé rek da jóg dem waalima xam na ne xam na asoyxu góor gi ne an na woo naka moom xat alaama dikkee na yeddeel bi maa ci li nga xam ne asmaa déggal na ko alxulaama gune gi gi xam ne gune gi bu jaaree nii dem ñenn ñi dañ ko dal wax ne gi dafa ñàkk yërmande kii ñu toll ñii ko dimbale soxla ko ci métier bi mu toog mu ba mu demee nii ci diggante mag ak gune fa janaha mu jeng ila silmihi jëm ci jubóog moom ñu ne ko léegi danga bëgg ñu jubóog waa baa bañ alxulaamu gune gi ilal masi andara dox bidaayi ak jàngoroom wal haraf ak daw mindi xaayi ci dajeeg moom góor gi ne man na gune gi ne maa bëggoon bëggatuma sa dara wamaa saala dañuñu basala mu joxe ayu sana ba mu toroxluwaat li hukkumihi ci xatteem wala yabxi te du mu sàkku ajran fay ala ajmi ci nàmpatalam hmm. mu ne ko léegi dañoo juboo hmm. kaay ma nàmpatal la hmm. te doomu joxaati dara waa baa bañ alxulaamu góore gi ilal masiyan dara dox bi daay yi ci jàngoroom mu ne gën a man daal maa bëggoon bëggatuma sa dara wal xarafa ak daw min liqaay yi ci dajeeg moom wa maa saala fii hijaajin ci daggi hante wa sibaabin ak ŋàññante wa lisaasin ak lënkoo wa jidaabin ak ñoddi hante góor gi naan ko danga dikk maa dikkatuma góor gi dañoo di na dikk gune gi de pour na dem te mm. lu kenn ku nekk nga wax lam xam yow de yow de lankan yow de li nga li nga mel baaxut bu ne ka baax na ci it kenn ay mag mu soxot nga amuloo yërmande yow lañ nekk di waxante waaw yow lañ nekk di waxante ilaan dajja alfata gune gi mene si xaaxi ngir huutee gi hmm. ba gune gi mujj jooy hmm. <laughs> watala jàng hmm. rut na woo lafit bu suurat al istiqaar yére bi xar yére bi xar waaw wala mu di xawu mam gune gi xëy na isin te boobale li wafaarate xusri yi ngir bëri tartaab ndax métti na lool wani taate her bi yi ak xotte ku daram hmm. wëttim ri ak sagaram hmm. moom lim fi doon wut defaluñ ko ko hmm. wax nañ ko lu ko naqari xotti metti na lool baax na boobu xulóobu tàngala ci diggante góor gi ak ak góne te góor gi ak am nampatal kat la mi ngi wax ne day nampatalu te amul fay hmm. ñu xuloo ba xuloo bu tàng tàng tàng hmm. ku ci nekk ñaan yàlla sa morom ndege hmm. Abu Zayd mu ne hakkaa nettali na alxaarisu xaaris ibnu hammaam mu ne ixtajtu haajo xoon naa ilal hijaamati jëm ci nampatal waana teman bi hajir yamaama maa ngi nekk ci fuñ naan hajrul yamaama hmm. ba ci dëkk bu ñu naan hajru ci yamaama hmm. dama yëgoon ci sama yaram lu tax ma gis ne war naa anam bu talu hmm. xeetu faju la deret ji yàqu ci biir yaram bi moom la ñoo xel yi ke taj tu haajo hoon naa ilal hijaamati jëm ci nampatal bi hajrul yamaamati maa ngi ci dëkk bu ñu hajrul oo surtu gindeef ma ila peexin jëm mm. ci góor mm. mu an kuñ ma tegtal koo xam ne am mag la mm. yax jumu dana mu nampatal bi latafatin ci ndànk ci ñëwet ñu ne moom de waaye ko sedd loxo la wayu turu te dana mu peeñ an nadafatin ci sette itam ku silwise la loolu lañ ñu wax fa baas tu sama gune li xibaar yi ngir teewloo am ma yebal sama hmm. xale bi ko demal nga waal ma góor gi ne ko dafa am ku nekk fee ba gën a am talu ndax xam nga xamee xajjaam gaa ñi dañuy faral de ko xeeb hmm. di leen si seen place yi du la neex dëgg dëgg du leen di neex hmm. ma yónnee xoolu ko waa sattu ma fuuglu nafsi sama bopp li xibaar yi ci teewalam ma toog nag suba gune gi ànd ak moom ba ñuy ñëw hmm. faab taa faab faab taa mu yéex moom gune gi hmm. baada man talaqa ci gannaaw bu mu boyoo hmm. hatta xiltuho bu ma jottuho xat abaxa mu daw aw rakiba walla mu war tabaxan mbir an tabaxin ci gannaaw mbir mu ne gune gi dem yàgg lool ba ma ne mbaaru foo ko dañu fi gune gi far daw wala mbaaru dara mbaaru dara foo ko jot ci àdduna hmm. waa satt ma fugluloo nafsi sama bopp lintibaar yi ci muñandeku faabta hmm. mu yéex baadaman talaqa ci gannaaw bu mu boyoo xataa hmm. xiltoo ma jot ko xat abaqa mu daw aw rekk ba wala war tabaqan mbir an tabaqin ci gannaaw mbir su ma aada topp mu delsi awdal mufiqi darsi aji sooy mm. masanhu liggéeyam mm. alkalli kuraaji diis mm. ala mawlaahu ci sangam ba mu yàggee lool dikk andiwul dara mel ni ku ñooy sonne te yow doy sottal dara fa wax la wu mane ko way la ka hoonaa saxaala ku yow de boohun yow abuda findin da ngay yéex yéex find hmm. wasulu da sandin ànd ak ànd ak ànd ak uh, géy ak hmm. te andi sëf kay moo gën mu gaaw te andi wu dara lañ daan wax hmm. waaye mbaa mu yéex andi wu dara kay ko kay Mm. te ndaw ne mu yox te andi suuf kay mm. moo gën mi gaaw te andiwul dara waaye kii yox te andiwul dara kay mm. ko kay tanewul kenn fin du madrabul masali la ci yéex ñu ne dafa tibbi woon safara xam na xam na ci yoon wi xat bi mu yàgg na abura bindi ndax da ngay yéex yéex ak bind wa sulu da sandi na ànd ak géej ak daju boo ba léegi yaa ngi indi woon wa sama moom mu woote ne an na seex ak góor gi nag asxalu moo ëpp soxla min saate neex yee ni borom ñaari mbuus yi mu ne ah góor gi jot de masal la dégg nga harbin mu ngi ci xare bu xam ne kaxar bi Hunayn mu ngi mel ne xare Hunayn mu ne ma ah, góor gi nag talut ko de xaw naa ko waaye talut ma de tu ma daldi si almam saa dox ilaa hajjaamin jëm ci nampatal ka su ko dee nampatal ka seen barab yi ni muy demee ak leen nit ñi defaral de xeebee tara sawaruma dem ci seen barab yi wayir tuma gëlëm mm. bay na iqdaamin ci diggante song mooy jiif dem ci moom mm. way xajaamin ak dat mm. ma nekk ci dengi dengi toog muñ wala rek dem faju si su ma laay toog ma gis ne an naka luy mbir laa taani fa di deel ala di war koo xam ne yaati dana mu dikkal mm. alkanifa mooy one of those bari nay tur ay mustarahat tur yu bari laa mm. ma gis daa soxla man borom mm. parce que place bu suufee ni one of amul te ku ca am soxla dem ca ma ne kon damay dem ma dem wala ma sohittu ba ma fekkee nag ba ma gisee mawsimahu barabam wasaahatu ma gis mii sama mii sama woo mandargaam hmm. ba ma ba ca moom hmm. raaytu gis naa seexan ak ak góor hmm. boo xam ne hay atuhu meloom nadifatun aji set la kon yusfiru an nadafa wa harakatuhu yëngatum xafifatun aji oyof la kon yuhjimu bi lafafa gis naa ci ma mandarga yi ma ko gëmee waalayhi te nekk na ci am atwaaqun ay ndongo minan nazarati ci luy seetaan mbooloo mu bëree ko wër de seetaan an nasara ci cosaan loolu lay firi mbooloo mu dajee de seetaan jamono bii nag ñu koy jëfandikoo ci jumtukaay bi ñuy xoolee mooy li ne mu ngi mel ni sayyaara mbooloo muy waaye léegi jumtukaay bi ñuy tukkee muy oto dinañ ko jëfandikoo ya tasawur luxa wii la rek ah nit ñi ni ñuy amee ay ay ay changement yi mbir ndég ndég ndég soppee bu doxali ni ñuy am soppee bu doxali ndég rek ni mbir yee changé dafay feeñ ci wax yi léeg-léeg loolu la rek nasara hmm. kanat fil asli li jamaatin tanzur ada wa tullaqul ana ala alatin tunzaru biha ayunzaru biha ma ñu nekk de min sabaru sayara kanat li jamaatin musafira walakinna ana tullaq ala alatin turkabu inda safar lam nekk de waale yi te nekk na ci moom adwaqun ay ndomb min a nadarati ci way seetaan wa tibaaqun ak ay tabaqa min siyaab mi sere lu ay déele wa bayna yaday nekk na ci kanamam fatan gune goo xam ne ka samsaamati mu ngi mel ni jaasi samsaama mustadifun ku daaji sampu lili jaamati ngir nampatal xam na gune gune ci kanamam mel ni mu bëgg ku ko nampatal wa ko te góor gi yëqool mu ngi wax la wa ñaal ko góor gaa ko naan araaka maa ngi la gis xarab rasta nga génn rasaka sa bopp xablaan tubi sa njëkk ngay génne xittaa sa ka sa këy yaa ngi may tàllal sa bopp bi te joxu te waxoo ma ne walam te waxoo lii ñaan ne saa nii la wala ñaar ñëw fii di yukk bopp te waxoo am fay gi wala su deen man nag mi man may ku xam ne yëpp yoon dana mu jaayee naqa daan teewal bi dee ci man li ma xam mooy fay ma ma defal la de waaye defal la ba heure sàngam yooyu du suma mbir de wala yet lu du mu sàkku asaran jeexit ba nga tax ay nañ ci gannaaw kaye fayooma fayooma ba dem neex maanaam mm. ni ma xale bi def mm. man duma magam de mm. man duma kooku de ñu ne ko baax a baax fayin anta ndegam daal rabaxta konte nga bi lay ni ci kaye o jéem ta nampatalees la bi ay ni ci sa sa di tiaxata soo génnee fay gi daal ma defal la li nga bëgg wayin kunta tara dégg ak awla mu gën a xëy mm. waxas nal falsi mm. denc koppar mm. axlaa mu gën a neex fi nafsi ci bakkan su fekkee yow bëggee mooy sa mbir génne mënoo ko aywa faqara jàngal habasa wa tawalla aywa xabal ma sooy boo nga mel xabal ma habasa njëkkal na wa tawalla te bu dëdd waxru te nga tumaranke ani walis ma aywa sori ma way laa boo defu mm. ma diggaale ko yow mm. loolu la góor gi wax mm. ba la dewal fata gune gune gi walla di giñ naa ci buur bi nga xam ne harama haramal na mu sawxal may tëgg pen kama harama ni ki mu haramalee saydal haramay ni rëbb ca ñaari hurum ya muy alharamul madani wal makki inni man laaf la laaf la su maa gën a ñàkk hmm. minim ni yow may ni ci doomi ñaari fan hmm. maa gën a banque li rab démb dara xaw hmm. may la giñee ni loolu la gune gi wax wala di giñ naa ci buur bi nga xam ne xarama xaramal na mu sawaxal may tëgg fen kama xarama ni ki mu xaramalee saydal xaramay ni rabbam xaramay ni inni man laaf la su maa gën a ñàkk minim li yow may ni ci doomi ñaari fan ba seex dëgërlul bi say ni talaati ci yol sama xur baatu talaan dañ ko jëfandikoo ci domo di ko jëfandikoo ci xur ci ci di daal la bokk léegi man da may hóolu rek wansir ni nga yéexee ma ila saati ba ci sama koom dama bëggoon nga defal ma rek te muñal ma incha bu baaxee rek sa xol dina ko loolu mm. de moom. de bañ a xas ba dee. te nit lu mu def dee. su deekee du ko defar. indi jàng benn dar wax jekkul dëgg-dëgg te wéra digi sonnaw dama bëggoon rek nga wóolu ma rek soo ma nampatalee rek mu yal ma saa su amee fayda fa qaala dal de wax alla hoo ñaal gune gi asseexu góor gi góor gi wax gune gi ne ko way xar taxoonaa sa yërmande yow daal inna masalal woodi naka melow dëhël yi ka xaaf di noo di mel ni jëmbat bant mu ne ko dige hmm. comme jëmbat la hmm. wa moom bay na ayut rikaho hmm. nekk na ci diggante bu jotat ko xalaate bu xalaku ayut rek wala deetu jot min hu ci moom aruta bu mbanax mooy tàndarma ju tooy boo jëmbatee mën naa bi mag hmm. andil la meññat hmm. waaye mën naa far deexin nag hmm. muy coono kese nit ñi seen digge yi noonu la léeg nga dajee gor mu wax la ëllëg jot mu def yëfi gor lam la waxoon mu matal ko wante léeg nga dajee keneen mu am lu mu la wax ci ëllëg te mu ko waxee rek la ca pare boo lëgee doo gis dara mun hmm. na xarma kan nga ci ñaari hmm. inna masalal woodi naka melow dëhël yi hmm. ka xartil woodi mu ngi mel ni jëmbat bant woomam jëmbat bay na ayudrika woo mu ngi nekk ci diggante bu jotat ko ayudrak wala déefi jot mu nu jot arutta bu mbana mooy meññet tàndar mu fama ana lan nag yudri ni moo may xamal ayaxsulu ndax dana xamee min hoo di ka ci bi janan kottite amaxsulu wala dana xamee minu ci moom xalax danan ci somoom léegi nag man xawm ala man doog gis rek fu may dëgg ba walu la gisaguma ko xam nga digg bi dana ma amal njëriñ wala man ma cee perte su ma topp maa ana lan asiqatu mooy ndëgër lay bi an naka ci naka yow xii na tabtaay du waxtu woo sore sa tafi xel matal bi ma ci li nga xam ne temps du ko dële wa saara te mujj na alxadru hot ka tax jiili demel ni jébbu mm. mooy weex bu nekk ci jëha fos mm. xam nga taar la mm. fi xiliyati hadal jiil ci takkaayal gi demaat te itam man fu may war a dëgg bay la hóolu ne su ma la defalee li nga bëgg ba sori ba nga sori samay bët danga ma matalal li nga wax loolu daal moom fu may dëgg ba hóolu ko bu ma seetee li ëpp ci nit ñi niñ melee daal jamono bii nit ñi amatuñu jom rusatuñu wax génn ca mm. amatuñu ngor bañu diggaale teppi kóola rek mm. loolu moo xew te ci waa jamono bi la xaadal mm. wafaa u wafaadal xadru wan farajat masafatul xulfi bayna al qawli wal amali loola fi ne comme nit ñi wóoruñ te yow ci nit ñi nga munu ma la wóolu te xaw ma la munu ma la te xaw ma kun bi dibin saa saaidin mustanisan wa ida absarta insanan fafir wajal innaasa ka shaxsin wahidin summa kun min dalika shaxsi hadir mooy nit ñëpp soo boo nga jàppee ne ñuy kenn ak nit nga ñàkk a wóolu kenn ko fa ne suma topp ma an la siqatu mooy ndëgër lay mm. bi an naka ci naka yow mm. xiina tabtaxidu waxtu waa da nga sori mm. sa tëfee xel sa ngay matal bi ma ji li nga xam ne taxidu da nga ko dale wa qad saara te mbiroom mujj na alxadru hoy hot ka tax jile de mel ni jébbu fi xiliyati hadal jil ci takkayel gile maar farini noppal ma billahi mina hmm. tansi bi ci bugal waaye bu ma sonal waaye hmm. a ah, farini noppal ma billahi mina tansi bi ci bugal hmm. warhal te nga laxas ilaahi si yaawi jëm ci fadana baw asibu till ay wa ca gëjji ba <laughs> fa till yaay ba we mo sonal ay wa ca gëjji ba la <laughs> la ko wax dëgg faarix ni noppal ma billah mina taadibi ci bugal war xal te nga laxas ilahay si yaami jëm ci fa dana baw asibu tilla fastawa dal di jublu nag alxulaamu gone gi ilayhi jëm ci moom gone gi nag mel ni kuy engagé góor gi wa qad istawla te mbiroom not na alxajalu rus alayhi ci moom mel ni daal li góor gi wax daal diis na ci moom kersa wu na ci waqaala mu ne ko hmm. wallahi giñ naa ci yàlla hmm. maa yi xiisu duhuruj hmm. benaa di kóolare xayrul xasiis ndara aji kurul aji aji xees al wax di ku suufe gis nga huruj ku des gannaaw rek moo koy def maa yi xiisu duhuruj benaa di ci kóolare xayrul xasiis ku aji xees al wax di ku daa ji suufe mm-hmm. wala yërid duroot mm-hmm. xadir al xadri deqab huruj mm-hmm. illal wadim al xadri na daa ji suppeeku dara ji nit ku dul dara rek mooy nangoo doon xotkat yi nit war a do yëpp yi war a do yëpp yi nit a do yëpp yow tànnoo do ci lenn lu may nekk xorkat dul dara rek moo koy def nit yi mën a doy yëpp hmm. yow tànnoo doo ci kar hmm. rek hmm. wala yërit durot xadir al xadri de xab huruj ilal wadin al xadri daraji suufe daraji wala arafta te boo man ana kan ana mooy man te boo ma xamoon boo xamoon man ki ma doon lama asmaxta nii doo ma déggal alxanaa wax ju bon soo kag ma teral de hmm. waaye wax ju ji nga wax ma hmm. dama wax de hmm. lakin naka li fi nekk yow jahil te réer nga fokkul te nga wax wante danga wax te xamuloo bobul te nga gaanuwaay a gis naa ko de xay wajaba fa waroon anta jude ba nga sujjoode fa nga waroon a sujjood nga gaanuwaay yow ka nga waroon a teral ko nga gorojal wa bulta nga gaaw wa haytu waje fa waroon anta jude ba nga sujjooda wa maa lëf lu màgg aqbaha ñaawal namu alxurbata tumaranke wal iqlaala ak ñàkk waaye tumaranke ak moo mën a suufeel nit waasana te mu rafetal xawla man waxi ka nga ne xaala wax na li rafet ma mu ak la way ka wax wax bii moo wax dëgg ma inna alxariba tawila dayni mumtahanun fa kayfa xaalu xaribin ma lahu qootu lakinnahu ma tasinu lxurra mojiatun falmisku yusxaqu walkafuru mabtootu wa talama usliya alyaquutu jamra gadan summa intafa aljamru walyaquutu yaquutu mu ne ko saayir bi waxoon li ma wax dëgg innal gariba naka aji tumaranke hmm. at tawila dayli kudaaji guddu ci lafit hmm. mumtahanun ku ñu doxadal la hmm. mu ne barab boo fa dëkkulee donte xam nga fa lu ne bis dana ñëw rek nga xam ne dëkkuloo fa kayfa xaalu garibin kon naka mbiram aji tumaranke ju xam ne maa la ñaalu ko xóotun dund kon boo ko dëkkut te yoroo dara hmm. nu muy war dëkk ci naqar rek hmm. lakin na woo li nekk mbir hmm. maata siinu du ñaawal alxurra gor moo jaatun aji méttital waaye fekk na si gor méttit wàññiwu ko dara si gor ñàkk ngoram moo koy wàññi dara fal misku gàtt ak yusaaqu des na ko fët mm. wal kafooru kafoor mm. maxtuutun lu ñu mokkal la lu ñu fët la mm. gisoo gàtt ak misk wala gàtt ak kaafoor dañ koy dëbb ba mokk dëbb googa ñi ko dëbb da ko dóor da ko dóor ko ca dara jaam ja dara wàññiwut ca xañ ga dara wa usliya te yàgg na bu jaara leefee al yaqootu waruusu yaqoot jamra xadan xalu xada su man tafa topp fay aljamru xal bi wala yaqootu te yaqoot bi yaqootun yaqoot la mu ne wurusu yaqoot yàgg nañ koo jaaral ci safara ñu dem dem ba ca kanam safara wa fay wurus wa des de wurus wam doon rek ñu ko loolu ma dal ci ma diggante yow fa qaala wax la hoo ñaal ko asseexu góor gi góor gi ne ko yaa kaay leen seet wayla taa sa bàyyi yaa perdal bàyyi yow li ngay tiit mooy la yow li ngay yaa kaay leen seet wayla taa sa bàyyi waaw la ta ak xawuk sa ñoñ yow yaa naqari say bokk dëgg waaw la ta ak xawuk sa ñoñ a anta ndax yow fii mawqifi faxrin yaa ngi ci ndamu yaxaaru boobu dana mu feeñ mm-hmm. waxasabin ak xasab yu sar woowu des na ko feeñal mm-hmm. am mawqifi jildin wala taxawkaayu der mm-hmm. yuksatu boobu des na ko xoos waqafan ak paaka boo xam ne yusratu def na ko jam paaka ak ak ak ak des na ko xotti mu ne ko fii tàllal sa doq ñu xotti laa fi ne waaye xamul diwa ma jur Mm. Mm. Mm. fii loolu fi nekk tàllal sa dopp ñu xotti ko rek moo fi ne waaye amul ci diw laa bokk de waaw wax dëkku fi waaw loolu fi nekk rek tàllal sa dopp ñu loolu fi nekk rek nga joxe li nga war a joxe dem anta ndax yow fii mawqi fii mawqifi faxrin yaa ngi ci barabu damm bu dana feeñ yaa ngi ci barabu damu yaxaaru boobu dana mu feeñ waxasa min ak xasa bi saar boobu def na ko siiwal am mawqifi jildin wala taxawukaayu der yug boobu def na ko xoos waqafan ak gannaaw yusrat boobu def na ko xotteeg paaka yusrat mooy mooy paakay nampatale kay waxab jotul ne hmm. an na la ka hmm. naka ñaxal na la albayta hmm. néegu tedd nga baytan daa imuhu azu wa atwalu wala albayta kaaba gi sax kama daaytan li ngay woote soo xeboo sax yow nga judd comme ni ko waxe ayaxsulu ndax dana xamee bisaalika ci loolu xaj mu kadalika nampatal sa sàllu baat affaire sama maam nii sama bàyyi nii rek loolu du la may ñii la nampatal bi laa déeréer wallahi walaw an na abaka doonte la sa baay anaa ko kowe na mu xala abdi mana su xeboo comme Abdul Manaf. Qamarul hmm. Batha. Hmm. am na gars hmm. Batha. gis ko bu baax aw daana aw daana wala toroxlul. li xaali ka ñaar sa nijaay. Abdul Matan kenn la ci ulamaaul arab yi. soo yeboo sa kër ndey toll nu ne bay toll nu fii daal génne liñ la laaj tanaka dox gi ñu nampalal si paasa moo fi am wala tadrib balde dóor fii hadidin ci weñ baridin gudaay ji sedd weñ mm. soo ko bëgg fudd da koy mm. tàngal door koo dóor waaye mm. bu seddee nga dóor ko du fudd coono rek lay doon mbir mu mën a doon lay mu sotti soo ko bëggee da koy nam wala tablu bal sàkku maa mm. li nga xam ne lasta déer yow mm. du waajibin nga daa ji am loo ñaal ko loo xam ne mënoo koo xam mm. jaru ngay toog bi de wane ne bëgg nga wa bàyyi na ngay damu isa baaxayta booy damu bi ma joodi ka ci lu ñu xam sa laa bul damoo bi ju doodi ka ci say maam rek wa na nga damoo bi max sooli ka ci lu ñu xam sa laa bi usooli ku waaye ci say cosaan mm. wana nga dama bi sifaati kay ci say melo mm. laa bi rufaati ku waaye wasa yax yu funoo yi mm. wana nga dañe damoo bi alaaqi kay ci say kexe mooy li nga am laa bi alaaqi ku waaye say cosaan soo bëggee kuraanaw wane li nga sottal rek mu am solo qiimatul insaani ma yuxsinuhu waaye affaire diw sama maama gi. Mm. affaire man ci kër diw la bokk. Mm. yooyu amul solo. Mm. ah bëggee ko la li nga sottal rek. qiimatul insaani ma yoxsinuhu. la in faqarta. bi abain dawi sharafin. laqad sadaqta. walakin bi sama wala doon. loolu ci nekk rek ah. la faxarta bi abain dawi sarafin laqad sadaqta walakin bi sama walado loolu de moo ca nekk loolu de moo ca nekk wa bàyyi na ngay damu isa baaxayta booy damu bi moo joodi ci lu ñu hamsa laa bul damoo bi jodoodi ci say maam war na nga damoo bi max suuli ka ñu xam sa mooy li nga xam mm. laa bi usuli ko ay dut ci say cosaan mm. war nga damoo bi sifaati ka ci say melo mm. laa bul damoo bi sifaati ka ci say ay funo war bi alaxi ka ci say say kaye laa bul damoo bi alaxi ka ci ci say cosaan wala tutin bal topp atama xemem fa yudil la ka saw sus mu toroxal la intihaaj say bëgg-bëgg ci mbir yoo xam ne du sa mm. mënul nekk mm. loolu day toroxal si bor mm. wala tattabiate bul topp alhawa bànneexu bakkan ba yudillaka saw su mu réeral la bul topp soo ko dala réeral baax na foofu ni yoon dajee Hmm. Hmm. sell hmm. e min habaraatihi ci ronge ni guni góor gi commencé di ngantalu balu xaq di neexal guni gi mu noppi nag waaw a seyxu góor gi yaxtadiru min farataatihi ngir ay rëcc rëccam yu xayyidu te min habaraatihi ci ronge ni guni gi laa yusri du mu ila ixtidaarihi jëm ci góor gi wala yu xasiru du mu gàttañlu ala ci rongañum waaw asalaamaaleykum ah si sa te gune gi laa yusri du mu ila ixtidaarihi jëm ci góor gi wala yu xasiru te du mu fegu du mu an istixbaarihi ci rongoñam ci jooyam mm. ilaan xaala ba góor gi wax la woo ko ba góor gi ne ko mm. fadaaka yal na nekk defe nga mm. am ka sa baay tax waa daaka yal na jéggi la maa lu xam ne yoxum ka dana la jàqaloo ay baati neexal la rek ama tas amu xanaa doo yokkat nag aleen waala xawu jooyi sàppi hut la métti na di ama taarifu xanaa xamuloo mm. al ixtimaale xenu tooñ mm. xanaa xamuloo muñ man la supporté dara mm. ama samiata xanaa dégguloo bi man ci ka nga xam ne ak xaala xàcceel na waa te mu jàpp bi xawli man ci wax ki ne xaala wax na déggaguloo kabale jàpp ci la waykat ba wax ne ahmid bi xilmi kama yukkihi du safahin min naari xaydika wasfa in jana jaali hmm. fal xilmu afdalu masdaana labibu bihi hmm. wal axdu bil afwi ahla ma jana jaali hmm. ahmid na nga fayee bi xilmika ci sa lewet maa lu xam ne yuskiihi dana ko taal soo safahin borom ak ndof min naari xaydika ci safaraw sa tàngoor safaraw sa mer ci safaraw sa mer mm. wasfax te na nga dumoyu mm. in janaa bu tooñee mm. jaanin aji tooñ soo amee dox bu la merloo ca ndofam nga yow na nga jéggale ci sa nit sa nite ahmet na ngay fayee bi xilmi ka ci sa lewet maa li nga xam ne yus kii dana ko taxal soo safahin borom ak ndox min naari xaydika ci safaraw sa mer wax was te na nga dumoyu wala na jéggale in jana bu tooñee jaanin aji tooñ wal xilmu lewet abdaluma mooy gën ci lu xam gi is daana taaroona alla bi waaja xelu bi ci moom borom xel lu muy damoo bu dul lewet nite rek hmm. nite ko gën ci moom hmm. wala du jàpp bilan fi ci jéggale hmm. axlaama mooy gën jaay neexe laala jana kotti na ko witt na ko jaanin aji kotti nee muñ li muy jural nit moo gën lu ne fa qaala dal de wax la woo alxulaam bu ne gi ne ko amayin naka daal yow law saa te boo yëgoon hmm. ala hay si ci sama dundu hmm. almun kadir buraaji nax hmm. buraaji nax laata te kon nga ma fii damee ci sama rongañ almun hamir yu daa da way dootel yow soo xamoon li may wéyee coono yi may kon jooy yi jooy yi may jooy ne kuy wéyee li may wéyee nii ni maa def rek la mën a law zaharta boo yëgoon alaa ay si ci sama dund al munkadir bu daaji nëf la hadarta kon nga ma fii damee ci sama rongañ al munhamir bu daaji dotew walakin li fi nekk haana dohadina halal am la si ci aji rattax der bu rattax yomb na ci moom maa li nga xam ne daje naag moom addabir aji jamar hmm. ah, ki yaramam ratax hmm. li borom góomi yaram dëye hmm. du ji moom boo jegee doo xam coono ku jagari loolu rek la ah boo jagee doo xam coono ku jagari loolu rek ah, mooy wax bi haa na doxa dina yomb na al am la si ci aji ratax maa lu xam ne laa xaa daje naag moom aji jamar summa ka summa ka annahu topp daanaka gune gi. nasaa génn na. ilal istiyaay jëm ci kersa wu. mu mel ne gune gi nag na ko. faaqalaa musu mee ku anil bukaay walis jooy. mu noppi faa mu dellu ilal inhiwaa jëm ci jaaju. dal di waqaal mu wax li léegi xasirtu mujj ila hmm. ba jëm ci li nga xam ne istaay nga ko hmm. man ma noppi ma baxal la nga bëggoon hmm. léegi noppi naa farqa na nga daax maa li nga xam aw xëy te doxa dal nga ko comme xam nga suma mbubb ah, nga dimbale ma ba ma man koo sol wala nga dimbale ma ci lu bo fa qaala góor gi hay haata sori la soxala soxlaal na sian bi samay yoon sian jamu sian bu la mooy yoon wu jaar ci kaw doj jadwaaye sama may mooy li ma am may gis man kay toluma kenn koo mënut baleen ma lu man baleen ko di man kay toluma kenn waaw loolu la góor gi wax de hayaata sori na na jadwaaye sama may shaabi samay xur samay yoon fasim na nga seenu baari xase siwaaya melaxa kudul man xanaa kay ñaan ndimbal ci ñeneen ñi loolu laa xam su ma innahoo topp góor gi naxaada buur na mu yastaqrida topp asufoofa sàppe yi waaye taj di te muy mayu mooy muy ñaan al wuquufu taxaw yi hmm. wayun si du muy sabbe fii dim ne ci biir li nga xam ne moom hmm. yetoofu dana mu wër góor hmm. gi commencé na da ñaan nit ñi ci biir li muy wër da ñaan nag mu ngi woy woyi uqsimu bil baytil harami alladi tahwi ilayhi zumarul muhrima law anna indi quuta yawmin lama مسدد المشرة والمحجمة ولا تضر نفسي التي لم تزل تدمو إلى المجد بهذه السمة ولا استكى هذا الفتى غلظة مني ولا شاكر مني هما لكن ظروف الدهر غادرنني كخابت في الليلة المظلمة واضطرني الفقر إلى موقف من دونه خوض لظى المضرمة faal batan turikuhu riqatun hmm. alay aw taatifuhu marhama hmm. uqsimu maa ngi giñ hmm. bil bayti ci néeg alxarami bare bu ñu hormaal allati allati néeg bi nga xam ne tahwi dana daanu ilayhi jëm ci moom azumaru mbooloo yi almuhrimati ya hormal harmal maa ngi giñ ci yàlla bi borom baytul haram mm. néeg bi nga xam ne nit buñ xarmalee bala mm. ñoo jëmali mm. ndax ñu mën a xam ak xeeweeku moo xam xaj lañ xarmal wala omra alladi néeg ba nga xam ne tëx wi dana jublu dana daanu ji ilahi jëm ci asumaru mbooloo yi al muhrimat yi roy xarmal xarmal ne law an na hen di su fekkoon na fi xóota yow min dunda benn bis mooy reerab tay tay su ma ko amoon wal xañab tay tay konoon lama masa du laal yeddi sama loxo al misrata paaka paaka wal mi jamata ak nampatalekaay kon xelaatuma taxaw fii naan damay nampatal wala tabatte ni konoon du nafsi sama bakkan allati bakkan bi nga xam mm. lam tasal mosul dañ mm. tax moo di yëkkati el eh, ma di ci tedd nga hmm. lu mu gërëm bi haadi sima ci mandarga bi hmm. ni ko doon suma bakkan lu hmm. mos gërëm mandarga bi waaw ah, wala tadat ni ko doon du gërëm nafsi sama bakkan allati bakkan bi nga xam ne lam mosul dañ tas moo di yëkkati el eh, ma di ci tedd nga ni ko doon du gërëm bi haadi simati ci mandarga bi ne ko noon xalaatuma moos ñii ma xamee ne man nàmpatalkat la ñii ma mandargaale loolu mm. wala stakaate ni ko noon du tawat mm. haadal fata gile gune mm. xiltatan tal mooy jafe min nii ci man wala saakaru ni ko noon du ko dégal min nii ci man humatun benn dangat ni ko noon topp bi di gune gi bu mu de joy muy nemmee ko laa di biir du xam de lakin li fi nekk surufu daari soppati yi nag hmm. raadar na ni bàyyi nañu ma xaabitin hmm. ma mel ni aji dajjitu hmm. fi laylati ci guddi al mudlimati gudaaji lëndëm waaye nag jamono nag moom xàggale fu xam ne daanaka gisatuma lu ma def xamatuma na ma def gisatuma fu may xaw xamatuma na may def ndax lor gu yàgg gu weesu lakin li fi nekk surufu daari soppati jamono yi xaadar hmm. na ni bàyyi nañu ma hmm. ka xaabitin ma mel ne aji dajitu hmm. fi laylati ci guddi al muslima gudaaji lëndam wattarra ni loru loona ma al faqaru ñàkk ila mawqifin jëm ci taxawaayu taxawukaay bu xam ne min dooni hi nekk na fa ko xaw dul la xuus takka takka al mudrama bare bu ñu taal mm. te itam ñàkk mm. moo yóbbee mm. may xuus ci lu xam ne sala moo gën a moo gën a diis xuus ci biir safara wattara nii loru loona ma alfaqru ñàkk ila mawqifin jëm ci taxawukaay yu xam ne min dooni hii nekk na fa ko xees la daa xuus takk takkatal safara al mudrama la lu ñu xambu hmm. faas fatan ndax waay hmm. tudrikuhu ko jot hmm. riqatun yërmane alaye ci man aw taxtifu wal dana ko wëññi marhamatun yërmane ndax ku yërëme ngir def ku yërëme de def lu baax ngir baax na ko benn yoon insha nekkoon naa awala man de aji ci ku xam ne mm. awaa yërëm na li balwaahu musibaam mm. wala xatte mu yërëm li sagwaahu tawatam mm. fa nafaxtu woo ma jox ko biddi biddir xamay ni ci ñaari dërëm wa qultu ma ne laa kaana yàlla buñ nekkati de sama moomeel wala kaana doot nekk na saa muy de borom fenn kii de doon dafay nax itam mm. ñaar dërëm yi ma jox ko jonaa mm. ko jox xol bu tàlle tàlle mm. fastaaje mu bégee bi baakoora te janaahu ci njël benal kotti teem baakoora mooy lii njëkk a feeñ ci meññet mu ñor loolu la ñoo tuddee ñamte waaw lii njëkk a feeñ ci meññet mu ñor loolu la ñoo tuddee baakoora ci waxi arab dégg mu kontaan ci suma loxo la xewal lekk génne fabtahaje mu bégee bi baakoorati janaahu ci njëlbeenal kottiteem wa tafaala mu harfaanoo bihima ci ñaari dërëm yi lixinaahu ci koom mun yal na de tubbeekaay walam tasal dañul addarahimu dërëm yi tanhaalu di sotteeku alayhi ci moom di toflantoo alayhi ci moom wa tansaalu te wala tusal dañul adrahimu drami tanhaalu di sottee ko alayhi mm. watan saalu te ñuy toflantoo la day fa moom mm. de ko jox di ko jox mm. hatta aala ba dellu ba mu mujj dahen de borom dundu xadraa bu daa ji naar ba mujjee xam naa daal yëf yi na xam wa haqibatin ak gafaka mooy defukaay yére mm. wala defukaay bagage mm. bajra abudaa ji mm. bajra fan la xamul muzakkar duñu wax ab jar kiisun ajar loolu la ñuy wax kiisun ajar porte-monnaie ne bu fees ajara xaqibatun bajra rek la ñuy wax wax ab jar bi afan la rek laa xamul fan bi fan la rek laa xamul afan fasdahawu dal de ko hoyofal hmm. alfarahu mbég mi enda hmm. salika fa foofale hmm. wahanna amu ndokkeel nafsoo boppam bi ma ci leen xam naa li nekk na foofa mu kontaan trop ci xéwal gi ba wax ndokk bu baax a hoyofal ko alfarahu mbég te enda salika ca foofale waxaan na am ndokkele nafsahu bakkanam bi maa ci li nga xam naa li ka na ko hmm. wa qaala mu wax lil xulaam hmm. mu wax gune gi moom góor gi hmm. ne ko haada lii dey rayon naataango la boo xam ne anta yow badruhu yaay jiwum lii de xewal la boo xam ne ci yow la sababoo hada lii rayoon naataango la bu xam ne ante yow badru yaay jiwum waxala bun te lu ñuy ratt la soow mu xam ne lakka ñaal la satruhu genn wàllam kaay ñu seddoo ko maag yow fa halumma kaay li naqtasima ngir nañu seddoo wala naqtasima te bu ñu kersawu kaay ñu seddoo ko lew nañu tomb fa taqasamahu ñi seddoo ko mm. baynahuma ci seen diggante mm. siqal ubluma kem xarag yëj mm. waaw waxtu boobu gis xettkat bi jël su faat su ko xettee ñaari boor yëpp ma di ko seddoo mu xem moo nett wana hada ñu dal di buur muttafiqayil kalimati da ñaari way dëppoo ñi baat xam naa tàggoon na waaye fi ne jubóo nañ neex na lool fa taqasama wu ñu seddoo ko baynahuma ci seen diggante hmm. siqal ab lumati hmm. muy kem xarag yej hmm. wana hadaa ñu buur muttafiqayil kalima da ñaari way dëpp wayi baat wala man talama ba nasoo baynahuma ci seen diggante yaqadu listillahi caqab jubo e ba demee ba mel ni juboo nañ waxam ma te hitte woo ab seexu góor gi bi rawaxi ci dem góor gi mel ni dafa bëgg a dem xultu wax naa la ko ñaal góor gi hmm. ne ko xat tabaw waxaat dafa yëngatu hmm. dami sama deret hmm. wana xaltu sama toxal ilayka jëm ci yow xadami sama ndëggu fa hallaka ndax ñaan na la an tax jumani ba nga nam ko talan ma watu kaw ki fa te nga fegal ma maa li nga ma ni dikk mm. ma ne ko man de waaye dama soxla woon naa man mm. nga ma ci dimbale hatta mm. boobu waxa yëngatu na dem sama deret dama yëggan ci sama deret wana xaltu toxal naa ilayka jëm ci yow xadam yi sama ndëg yaa moom samay tànk yaa ma tax fa àllaka ndax ñaar na la an tax juma nii ma watu ki fa te ma maa li nga ma nii dikkal na ma kon dama bëggoon nga ma boo ci amul ngant fa sawaba mu wàcce sarfoo gisam fiyee ci man ma ci suuf xool ma ci kaw dalay ci kaw xool ba ci suuf leeral ci suuf xool ba ci kaw. Hmm. wasdala foofu mu jege ilay jëm su masdala fa topp mu jege ilay jëm ñoom mu gën maa jege waa sada mu sadd ba yi. Hmm. ne kayfa raayta xuraati wa xadli. Hmm. wa ma jara bayni wa bayna saxli. حتى ثنيت فايزا بالخصل أرى رياض الخفر بعد المحل بالله يا موجة قلبي قل لي alam tara aynaka qattu misli yaqbahu bi ruqyati kulla qufli wa yastami bi sihri kulla aqli wa yajinu ljidda bi mayin asali in yakun il askandariyu qabli wa tallu qad yabdu amama alwabli wal fadlu lilwabili la li talli ah kayfa raayta naka nga gisee xudaati sama huruj waxat lii ak sama wuruj ba tey mm-hmm. ah noo gisee plan bi nag mm-hmm. pour mën a jëlee ci dara pexe bi mm-hmm. kay faraay ta naka nga gisee wadaati ah, sama wuruj waxat li ak sama wuruj wa ak li nga xam ne jara daw na bay ni sama diggante wa bay na ak diggante sama mbur sama mburt maag sama ndox si gis nga li xew ko doxalee wa ak li nga ne jara daw na bay ni sama ba ba ne sax léegi ak diggante sama nguur. Hmm. xattan sana it ba ma wàññeeku. Hmm. waaye san daaji texee. Hmm. bel xasli ci ngañ may. gis nga niñ ko doxalee ba affaire bi am na jaa réussir. arhan maa ngi sàmm. riyaadal xis bi naata dëri naataango. bandal maxli ci gannaaw ak beekoor. xam naa yoruma woon dara. bi ma fee ñëw. waaye pexe mi tax na am na hmm. lu ma jàpp xaram baa ngi sàmm riyaadal xis bi dari na tàngo maa hmm. dal maxali ci gannaaw ak beko hmm. billahi giñ naa ci yàlla yaa mujjata qalbi yow bakkanal sama xol yow mi nga xam ne comme xaritu benn bakkan nga man xul waxal lii ñaan wax ma rek xalaat farat ndax mos nay gis ay naa sa ñaari bët xattu ci liwee misli sama waxal ma rek ndax man ngaa gis ku ni manam de billahi yaa mujjata qalbi yow bakkanu sama xol xul waxal lii ñaal ma ndaxal absara ndax gis na ay naa sa sa ñaari bët misli kem sama xattu ci liwee mu doon ko xam ne yaxtahu dana mu hubbee bi ruqyati ci mocci kulla xublin bépp xob xam ne lu mbir jafe-jafe mën na koo duggee pexe wayasta bi te dana jàppee béséeri ci njeebeer kulla aqalin bépp xel lu waaye ñëw ñëw na laa naxee ci wax ju fasaa waya jinu te dana laajtee aljid da dëgg bi maay di ci ndoxam mbóorante su mu mel ni day mbóorante te ci biir mboolante yooyu. dana jawaay xikma yu ñor. yekun bu nekkee al iskandari iskandari abul farid iskandari. Mm. batal maqamaati ba dee zaman. bu mm. nekkee qabli mm. ca sama su fekkee moom a jiitu jamono. ah fëttal lu taw bi misal day. xad yëpp doo de feeñ de. amaamul wabli ca kanam taw waame. taw bi danaa gis taw boo de mm. waaye wal fadlu ngëneel mm. lil waa bi ni ñaa taw baame de mooy saxal de mm. mooy ñoral mooy màggal laali talli waaye ñaalu taw bi misal mu ne su ma taw bi misal danay jiitu taw waame taw waame mujj dikk du tee mooy borom ngëneel li <laughs> taw bi misal la jiitu de taw bi misal la taw waame jiitu taw ba amee jiitu de bu jëm asamaan kay kenn la moom ba seen maqaamaat yi fukka ak fukka ak yemu cee kenn yemu cee kenn kenn waaw waaw man ay maqaamaatam képp lu ma ci jot a jàng man wax dëgg daal moom fukka moom moom moom moom yemu cee kenn kenn kenn kenn kenn yemu cee kenn waaw yemu cee kenn de waaw fukka yemu cee kenn yemu cee kenn business bu baax business bu baax a baax waaw loolu daal waaye bi ma amee maqaama tamit xam naa ko bu baax waaw man ba déwén sama noonu ko amee waaye boo ko seetee fatollu taw bil wisal xad yëpp doo danay feeñ amaamal wabli ca njëkk taw waame kanam taw waame waaye wal fadlu nga ne lil waabili ñaala taw waame laa hmm. li talli ñaala taw bis bisal hmm. qaala haris nee na fa nabahat ni heema pour hmm. joosatuhu rajasam alayhi ci moom bi mu rajas nii ci laa ne moom la waarat mu wan na moom joosa bi ne annahu moom seexu daan suñu góor gi la al musaar kari ku ñu junj ilay jëm jëm booba laa xam ne abu saydin la hmm. fa qarraatuhu ma de ko yedd lool hmm. al ibtidaali ci suufel gi muy suufel boppam hmm. wal iltihaaqi ak héeg bil ardaali ci way suufe ma yedd ko na ko dëgg daal yenn yi daal am na borom nit daal sàmmante la jag ca baax na ci moom de. Hmm. waaw ko samay dëgg kay. Hmm. wa qaraatu ma yedd ko xaal ibtidaal ci sufeel gi muy sufeel boppam. Hmm. de def loo xam ne wax dëgg moom war na ëpp loolu. wala iltihaaqi ak yéeg bi laa saali ci way suufe yi. yëngatu yoo xam ne ñoo xebre la ji ñu ne ci. amu ni mu toll. loolu laa ko ne fa arada mu dummoyu. amma ci li nga xam ne soo mii ah dégg bal faale wul. bi ma ci li nga xam ne xuri ah ko gis na ko moom. ah yàlla ngi may ko yàlla. ba ma xaaral xoromalu ma ko la. ba xaaral dafa ma rek kullu hisaay yahtadi laa fil waqa. xam nga li ma lay xamal mooy ku jagul moom mën daa am bañ. loolu la. kulla li saa yi léppi dàll mm. yaxtadi lay dàlloo mm. alxaafi aji fandañu mm. alwaqe kuraaji métti ji tànk telu bu baax a boo xamee ne yow kay tànki neen ci nga nara sës munoo el dàll waaw ah, mooy ku jekkul addina bala nga cee mën a daw dara da nga cee ngëb dara ak ku yorul dara mënul daw dara addina bala nga cee mën a daw dara ma mu xaasaatal mu haani sori ku ñëw doon ma sori wan ma ne ma amuñ ci ma benn wantala xamu bayu boo moom wab nu hoo ak doomam kafara tayri haa ni ñu mel ni ñaari fasi kursi mu dem moom doom bi ñu ngi ànd mel ni ñaari fasi